asalaamualeykum yéen ñi fi teew yëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci ak sa sant ah di remercier nag euh, ñi nga xam ne ñoo organisé lii man ça a été une parce que jàppoon na sax ñuy wax ci lay bokk may commencé rek di sawu di ma masawu surtout jigéen ñi parce que xam naa li nga xam ne ne présentement moom la ñuy daj parce que prison dafa métti ndax doom aussi dafa sori ci xolu yaay donc yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a ngi teew fii yëpp maa ngi leen di masawu di wax ne yokk seen xolu bu parce que li ci des bareetul xale yëpp ci nii ak ci nale dinañ génn loolu moom kenn mënu ci dara di wax ne nag réew mi xale yi de li nga xamante ne tey moo leen yóbbu prison leen rek bëgg seen réew dong dong dong moo leen yóbbu prison du leneen bëgg sa réew nag dafa am loo xamante ne nii Ousmane ko dafa am lu mu ci waxoon nee na bi ci gën a sedd ah nee na bi ci gën a sedd mooy dem prison ñàkk ci sa liggéey mais nee na bëgg sa réew sax mën nga ci ñàkk sa bakkan te xam naa ne xale yi foofu la ñu toll li nga xam ne nag tey moom bàyyi xale yi ci prison du lenn c'est de l'arbitraire kese c'est de l'arbitraire donc loolu mën a ñëw prison man dem naa prison gis naa la fa nekk man ba may dugg prison dama waxoon ne 6 mois 7 mois après ci lay génn parce que xam naa ne après élection yi man ci a waroon génn peut-être que mobilisation bi nga xam ne moo am. loolu rek moo ma ci génne mais xale yi nga xam ne ñoom laa fekk prison soo fa ñëwee sax man ba ma ñëwee prison xale yi dañoo gën a dalal sama xel parce que ñoom dañu fàtte seen i métit li nga xamante ne man moom laa waroon souffrir yëpp dama j'avais comme l'impression que ñoom finalement samay souffrance ñu ñoo ko jël fa partout fu ma mën a jaar da ngay gis degré de patriotisme bi nga xam ne moom la xale yi yore en prison donc loolu ça été vraiment pour man lu rëy may war ne tout simplement rek tey président bi nee na dafa nekk dans une dynamique de réconciliation dans une dynamique de paix et cetera mais li wërta wër mooy dañ ne il faut ñu pardonner mais le la seule personne bu war a demander pardon aujourd'hui c'est le président Macky Sall moom rek rek rek moo war a toog jéggalu sénégalais yi parce que li mu teg sénégalais yi depuis 12 ans du dëgg du yoon donc tey su fekkente ne dañuy dañuy libéré xale yi c'est vrai dañu leen parce que defuñu fa dara loolu moo tax ñu war leen libéré mais moom ci wàllu boppam dafa war a toog jéggalu sénégal yi c'est la seule personne qui doit demander pardon aux Sénégalais loolu mooy dëgg voilà pour bañ a guddal daal encore une fois yéen jigéen ñi teew fi yëpp ak ñi fi teewul vraiment maa ngi leen di masawu parce que xam naa actuellement li ngeen daj mais buñ leen rek li ci des bareetul parce que xeex bi. duñ ko bay tant ki nekk fii ci réew mi mayuñu bopp réew mi wasalaam. libéré si Ahmadou Bamba Diop. libéré ak Moustapha Mbacké. libéré Bamba Cissé. li si bu na bari na. Baye Jëmm Sène étudiant institut Arfat Joseph Colette 6 Fally Sané Mohamed Fofana seen famille ñu ngi fii seen famille politique ak seen famille biologique Yaya Sané Yaya Sagna sa famille ñu fii waaw bu ko defee ñu daal di woo Soxna Ndeye Diop pour la déclaration univers euh, la déclaration officielle du collectif des familles des détenus Soxna Ndeye Diop waaw c'est Amadou Bamba Ndiaye sa famille ñu ngi fii Matar Diédhiou Ndar Ndar sa famille ñu ngi fii Ba Ibrahima Ndiaye chambre 44 sa famille ñu ngi fii Cheikh Omar Biteye ak Amar Biteye seen famille ñu ngi fii Biteye yéen gi yëpp ngi fii ak seen famille politique Mamadou Lamine Djiba sa famille ñu ngi fii la famille Bodian attaque Bodian njaboot gaa ngi fii Babacar Ndiaye bu Pikine sa famille ñu ngi fii moom moo doomu dëkk bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs des états-majors politiques, Mesdames et Messieurs de la société civile, chers amis de la presse, merci de nous faire l'amitié et la solidarité de vous faire l'écho de cet appel, de ce cri du cœur de mère et de père, de frères, de sœurs et même parfois de grand-mères, de détenus que nous sommes. Cette étiquette de l'infamie devrait faire honte. Elle devrait faire honte non pas au peuple que nous sommes, mais plutôt à ce régime hors la loi, à cet État sans foi des lois. Mesdames et messieurs, peuple sénégalais, oui, nous sommes les familles des détenus politiques et nous en sommes ô combien fiers et honorés. Nous sommes les mères de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes qui ont fait parler le sang de leurs ancêtres. qui ont dit non, qui ont résisté, qui ont bravé la mort pour défendre l'état de droit et la démocratie. Nous sommes fiers de ces dignes fils et filles du Sénégal qui avec leur sang sont en train de réécrire l'histoire pour dire tous internet bi ñu ak lettre Momar Blondin Diop bi xam ni da ko bindoon euh, l'autorité pénitentiaire moo tax may waxaan dañ leen bàyyi Sénégal nag droit lañ bëgg justice lañ bëgg démocratie lañ bëgg Québec de guerre à main nue, dans leur cœur ardent, de leur sang de Guelwaar, ont porté le flambeau de la résistance et ont délivré le message qui consume aujourd'hui le cœur de la jeunesse, le message du changement, le message de la délivrance, le message de la souveraineté de notre peuple. Monsieur le Président, tant que vous l'êtes encore, retiendra votre magistère. Les cœurs brisés des mères de la nation, longtemps après que vous serez partis, retiendront votre règne parce que vous avez régné, vous n'avez pas gouverné. Les mamans, les femmes au foyer se souviendront de votre règne de souffrance et de misère, d'inquisition et d'injustice, un magistère de sang et de mort. un magistère de paquetas de nos fils. Justice aux martyrs Justice aux martyrs Monsieur le Président, tant que vous l'êtes encore, votre nom sera gravé en lettres de sang immuablement et à jamais dans le cœur des femmes du peuple sénégalais. Votre femme, vos fils, votre famille, votre clan, partout et toujours seront à jamais marqués du sceau de la trahison. Ils n'auront été grands que de leur aptitude à nous voler, à nous piller, à nous tuer et à nous réprimer. Ils ne seront grands que d'avoir œuvré jour après jour à déshonorer ce peuple qui pourtant leur a tout donné. Mais là, à jamais, ils auront lamentablement échoué. Et leur déchéance aura allaité. Et leur déchéance aura été à l'échelle mondiale. Et la condamnation aura été internationale. Et l'humiliation universelle. Le peuple s'est soulevé. Le peuple est prêt à payer le prix de la libération. Devant vous, mesdames et messieurs, nous voulons délivrer le message des le message des héros, le message des combattants. Robes demande justice. Le Cap Manuel demande justice. La jeunesse, partout dans les prisons, demande justice. Et que la mémoire, des martyrs soit sanctifiée. Du fond de leurs cellules, ils clament leurs innocences et dénoncent l'arbitraire de leur détention. Monsieur le Président, tant que vous l'êtes encore, ces jeunes incassables restent dignes et fiers dans l'affaire de leur géol. Ils ne veulent ni de votre amnistie, ni de votre pitié. Ils ne veulent pas de votre clémence parce que vous êtes froid et sans cœur. Du fond de leur cellule, entre le silence des murs, un seul mot désormais leur tient à cœur et nourrir leur espérance. Justice. Justice pour les vivants. Justice pour les morts. La justice de leur Père d'abord, avant que d'invoquer la justice divine qui, elle, avait prévenu. walla ittaba'al haqqa ahwaa'ahum la fasadati samaawaatu Libérez les détenus. Laissez-les rentrer dans leur foyer. Ils ne serviront pas de monnaie d'échange. Ils ne serviront pas de moyen de pression sur leur leader, à qui nous disons au passage seulement ces deux mots. Billahi doo Monsieur le Président de la République, vous ne nous choisirez pas un autre président. Vous-même avez été notre malédiction. s'il vous reste encore un brin de lucidité, le plus petit atome de reconnaissance vous anime encore pour ce peuple qui vous a fait tous les honneurs. Si enfin, il vous reste une once de dignité, épargnez-nous votre dialogue, parce vous désormais on s'est tout dit de votre réconciliation que sans exception, en commençant par le président Nous aurons la honte qu'il puisse être à votre image. Monsieur le Président, tant que vous êtes encore à la tête de notre pays, en vertu du code d'honneur dont vous émettons vous targuer, la seule et unique requête L'ultime acte de justice et d'apaisement dont vous pouvez nous faire grâce, c'est monsieur de vous faire violence et en dépit de la pression des faucons, fixer la date de notre élection dans les plus délais et surtout sans les et autres péchés